ginnaaw bi ñu bàyyi ko léegi ci kër Serigne Ahmadou Mbacke bi nga xam ne xalifa bi ñëw fii ci kanam Serigne Moustapha Mbacke ñu fekk fi Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly su ko defee dañu bàyyi Serigne bi rek eh, ak kanam bu sell bi di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Bara Dolly moom it di borom taxawaay bu am solo ci màggal bi ci at ma jot mu koy ànd ak yéen ba màggal bi jox tàkk conférence bi ak cérémonie bi ak xëy suba ñëw ànd ak bokk yi siyaar bi kon ñu déglu Serigne Moustapha rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu leen siyaare di bég lool ci jataay bi comme ni ngeen ko baaxoo def rek at mu jot ci seen siyaar yi ngeen def ci kër yi eh, di seet bokk yi di leen nemmiku tey ji nag bi ngeen ñëwee ngeen fekk fi bokk yi tedd suñu wëllëre suñu xarit ñu jóge ba Mbàkke jóge fu ne ñëw fi di ànd ñun siyaar màggal gi jugg ci kër kilifa yëpp di leen siyaare ngeen daje fee ñoom tey ji eh, ñu ngi leen di siyaare bu baax sëñ Modou Mokhtar ak équipe bi nga àndal di nuyu mboolem presse bi nga xam ne ñoom nga àndal yëpp euh, di wax ci li nga wax rek ci bis bi bis bu tedd bis bu ñu defal jàmbaar lislaam sëñ Modou Khary Mbacké njaboot gépp di ko def bokk yëpp di ko fekkee di ko teewee kon loolu ñu am ci mbégte bu baax ah comme ni nga ko waxee itam sëñ Cheikh mi nga xam ne Cheikh suñ xarit la suñ lépp di président groupe parlementaire bu PDS ci assemblée nationale yaakaar naa moom bis bii du ci lépp la ci ndax bisama wëllëreem may na ko ak bokkam may na ko ko ak wëllëreem ak séqam nit ñi may na ko ko ba tax na dem ci magal gi da ko fa gis dana ci taxaw bu baax di ci taxaw at yëpp ñu ànd ak di ca def ba dogal tey jii mu nekk fi mu nekk ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yalla mu yok ay darajaam ba li mu bëgg lépp te li muy wut lépp àdduna taxut lu baax ak lu mu ay bokk ak lu mu liggéeyal lislaam ak sëriñ Tuubaa rek moo tax mu di ko def ndax ku ne xam na ne bu toogoon itam nii ñu def nun ñii di tedd di ay bokk bu ko defoon it tedd waaye dafa fab loolu lépp teg ko fa xam ne nag lu gën a yaatal liggéey bi liggéey sëriñ Tuubaa bi lu moo ci gën mu summiku euh, ci ci xam-xamam ak xereñam ak ak ñemeem ak pastéefam ak fullaam nag may ko mu xuus ba àgg fi mu àgg tey ndax loolu lu néew la ci bokk yi ñu ko def ba àgg fii mu àgg kon ñu koy sant bu baax di ko ñaanal rek mu hmm, àgg rek ren bu déwénee mu àgg fu ko gën ndax ku baax la ku fii mu toog lu mu mën a place bu mu mën a occupé bu ñëwee ci ñun ñi fa mu nekkoon fañ nekkoon ak moom rek fa la ñuy tàmbaleewaat mooy li ñuy wax ci bokkee rek luñ gëj a gëj a gisee buñ gisee dañ xam ne dara doxu seen diggante li dox seen diggante mooy gëjee rek waaye buñ ñëwee rek fañ yemoon sosat kon ñu koy sant bu baax di sant bokk yi nga xam ne ñoom fi nekk ñëpp sëñ Cheikh Mbacke sëñ Moussa Ndiaye ne sëñ Sidnaam sëñ Sam ak bokk yi fi ne yëpp ñu ak sëñ Sidi Mbàkke mii moom sëñ Daamu Daaru Salaam moom sëñ Modou Mamoun moom it di suñu xarit di suñu doom di suñu lépp lu nekk ñu nekk ci ak ñoom nga xam ne yéen tey nii ngay wëree kër goo demit ñoom nga fay at rek yenn bokk yi rek ak soxna Ami Mbàkke moom sëñ Amidou mii nga xam ne moom itam sama rakk la nga xam ne bis bii ñoo ko ànd ma moom mu di ci jàpp bu baax di ma dalal gan yi di ànd ak ñoom ñëpp lu baax lu ne mu di ko ci def moom it ngi ko ci sant bu baax ndaxte lu mu ci def rek boppam la ko defal waaye teewut da ci jàpp bu baax a baax nu nuy politiciens yeeg ñëpp daal bàyyiwuñ kenn sëñ Modou Khari nag li ma la wax rek jàmbaari lislaam la joo xam ne ku amoon yitte la yitteem kawe woon na lool ci liggéey sëñ ba tax na fii mu àgg mu àgg di mbokkam sëriñ bi ci lépp waaye mu jaayoon ak bokkam jënde ko ak taalu bi ni koy waxee rek loola moo ko may lii mu am sëñ Touba jox ko lii mu ko jox kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant ci màggal gi mbokk mbooloo mi ni niñ koy mbokk yi niñ ko organisé ba fexe ba mu agsi fii mu agsi seen yitte la ak seen pas-pas ak seen gëm-gëm moo leen fi àggale kon loolu rek lu baax la ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di ñaan fu waaye jógee te ñëw fi rek yàlla sunu borom faj say aajo jàppandal say mbir lépp loo xam ne yaa ngi koy yoot yàlla nañ ci jot lu la yootit yàlla na la mooy barki Seexul Xadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Yeah, yeah.